aawuzu billahi mina seytaana rajim wa inni auzu bika wa suryataha mina seytaana rajim rabbi aawuzu bika min amasati sayatin wa aawuzu bika rabbi an yaxturoni barke borom tuba mbokk julli du tedd yi rawatina suñu mbokk taalibe yi ñuy bàyyi xel di ñu seetaan te di ñu déglu moo xam ci site internet yu fasanti yi nga xam ni ñooy direct wala rajo yi nga xam ni ñoom itam ñooy direct ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñu fay teewlu te di ñu bàyyi xel yëpp di la nuyoo fii ci Daaru Almoxti tey jii yamook altine yamook dimanche fukki fan ak ñett ci weeru mars ci atum 2022 di bis boo xam ni dañu ko jagleel a Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti ci ndigalu Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ni moo fi nekkal Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti waaye itam jaare ko ci comité d'organisation bi nga xam ni ñoom la dénk lépp lu jëm ci màggaluk Darou Mouhty édition 2022 ni ko magam yu baax yee daan amale tàmbalee ko ci Cheikh Mamadou Awa Balla wàcc ci Cheikh Abdoul Khoudous ba ci Serigne Cheikh Khadi ba ci Seydina Abbas noonu la ko Serigne Cheikh Mamadou basir fa yéene continuer ci ànd koog njaboot gi ñëpp fàttaliku dundal waaye itam màggal bisub dajeb Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ak Cheikh Ibrahima Fati borom Darou Mouhty ginnaaw tukki bu sell bi nga xam ni moom la Serigne Touba Cheikhul Khadim tukki woon ba ñëw dénk njaboot gi ak dongo yi cheikh yi ak dëkk yi ak ma Ibrahima Fati boroom Darou Mouhty dafa juróom-ñetti at yu manqué tuuti ñëw te dara yàquwul bisum mbégte ba ñu daje woon nag mooy màggalug Darou Mouhty ñu di ko waajal loolu moo waral tey jii plateau spécial la ñu amal boo xam ne ñu ngi ko amalee fii ci kër borom Darou Mouhty waaye di ko amalee itam ci taxawaayu mboolem comité d'organisation bi yëpp. ci njiitul Cheikh Mahamadoul Basir moom Cheikh Abdoul Khoudous mi nga xam ni moo yore euh, comité d'organisation màggal gi ànd kook njaboot gi yëpp waaye plateau bi itam ñu ngi koy amele ci teewaayu sunu sëriñ suñu kilifa di al imaam Cheikh Abdou Samane Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Awa Balla nga xam ni moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllu diine ci dëkk bu sell bii di Darou Mouhty bu ñu nee diine nag yaakaar naa dara gënu cee euh, yay dara gënu cee mag bis bi nga xam ne moom la ñuy màggal te li ko tàmbali ak la ko yeggale ak lañ ci doon fàttaliku lépp boo ko dàqee day daal di dellu ci diine te mos ko génn ci benn yoon kon jàpp naa ne Cheikh Abdou Samane Mbacke imaam moom Serigne Mouhamadou Awa Balla mu ngi nii tey toog euh, gis ngeen plateau yi am solo yi nga xam ni ubbee woon nañ ko ci télévision yi ci réew mi yëpp def ko ci sit internet yi waaye tey mën na maa wax ni ci plateau yi mujj la bokk yoo xam ni dañu ko fas yéene defee fii nag ci résidence Mame Thierno Birahim fas yéene ko def waxtaan wu am solo ànd koog sëriñ Abdou Samane Mbacke imam mi nga xam ni moom la sëriñ bi itam dénk lépp lu jëm ci liggéey boo am solo bi nga xam ni naalal na ko borom daarul moxti muy jumaa yi daarul moxti waaye itam ba léegi ci jataay bi sëriñ Gana Messere Maxtaar di conférencier boo xam ne yaakaar na duñu ko présenté ci réew mi ñu nekk ak bitim réew rawatina lëggeel sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim waaye rawatina ci ëttub Cheikh Ibrahima Faati borom daarul moxti loolu la koy firndeel mooy waxtaan wi bi mu koy def si bàyyi kowul Touba bàyyi kowul ci beneen dëkk waaye ci kërug boppam la bàyyeekoo ñëw fii ci résidence Mame Thierno Birahim fekk fi Cheikh Abdou Samane Mbacké ñëw fa seeni amal waxtaan bu am solo koo xam ni incha allahu rabbi dinañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye itam sëriñ bi fekkoog sëriñ Abo Mbacké moom sëriñ Bassirou Anta Niang nga xam ni moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllu communication bi te ñu gis wax dëgg yàlla itte ji mu ko def jëm jëm ko jox muy guddi muy bëccëg amul jën yitte ju dul màggal gi law tas ci àddina bi ñëpp ba ñëpp xam ne daal bisu mbégtee ngi boo xam ne ku ko teewul itam fa nga nekk mën nga koo dund ci sa xol mën koo dundal ci alxuraan ak sunna mën koo dundal ci xasaayit ak ay salaatu na bi kon sëriñ bi mën na maa wax ni euh, liggéey bi fa tabaarakallaahu liggéey bu am solo la bu kawee lool moom itam moom la ñuy àndal ci jataay bi xam na euh, bu euh, weesoo présentation bi ñuy def sax moom la ñuy jox mooy modéré jataay bi tey bu ko defee laaj yi nga xam ni mooy bàyyi ko ci moom Euh, dem ci sëriñ Gana Messere Maxtaar waaye dem ci al imam sëriñ Abdou Samane mooy diggante borom daarul moxti ak liggéey nga xam ne borom daaru moxti mos naa wax sëriñ saa jenn ni ko mbaa amoo taalibe bu dul liggéey ni ko boo ko amee booy ba nga wàcc ko daal ndax ku dul liggéey du jekki ku jékkiwut du jaamu yàlla ku jaamuwul yàlla du dem àjjana kon jàpp naa ni léppam da koo tegoon ci liggéeyal sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul ak jaamu yàlla loolu yi sëriñ dana ci ñëw incha allahu rabbi ubbi ko bu ko defee boroom xam-xam yi fi teew man ci indi ab bunt boo xam ni dañ ci mën a ci teewaay yi itam Serigne Mahmoudan Mbacké moom Serigne Bassirou Anta Niang moom itam kenn kenn ku ne xam na ni euh, comité d'organisation bi moom itam lëggéey bu am am solo la ciy def lépp lu jëm ci wàllu organisation ñu teg ko ci loxo taxawaay tolluwaayu liggéey bi ak màggal gi lépp coono yi la ko tàmbalee ci bale baak organisé beeg lépp fa tubaarakallahu aw noo yoon bari mën na wax mën na ma wax ni li dos li des suñu digg ak euh, màggal gi ay fan yu néew la war a doon euh, Cheikh Ibrahima mbakke euh, moom itam moom Serigne Bassirou Anta Niang koy ziare bu baax moom itam mi ngi teewee jataay bi mboolem journaliste yi nga xam ne teew nañu fi yëpp man damaa wax ne diggante Touba Darou Mokhti Mbacke bépp rajo bu fa nekk tey yaa ngi en direct Darou Mokhti fii ci résidence maam Thierno Birahim ak mbokk yi nga xam ne ñu ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew kon loolu mooy jataayu tey bi nga xam ni lépp ñu ngi ko amalee ci ndigalu sëriñ bi ci taxawaayu comité d'organisation bi waaye ci taxawaayu cellule de communication bi ànd koog borom xam-xam yi monsieur Abdou Samane Mbacke nga xam ne jàpp naa ni bu ñu nee Koriteeg Daarul Moxti wala ñu ni Tabaski Daarul Moxti wala ñu ni bisu iit ci Daarul Moxti àddina bépp dañuy xaar discours Cheikh Abdou Samane Mbacke ngir la muy làmbool ci ay njariñ ak la muy làmbool ci xam-xam boo xam ne jullit bu ne mën nga cee jariñu kon loolu lépp tey di ngeen ko am fii ci jataay bi waaye sëriñ Ganna Messere Maxtaar nga xam ni kenn ku ne xam na taxawaayam ci seexul xaddim waaye jaare ko ci borom daarul moxti moom itam mi ngi ci biir jataay bi kon mbokk yi dañu leen di bàyyeek sëriñ Abo Mbakke moom sëriñ Bassirou Anta Niang mi nga xam ne mooy président cellule de communication bi tey mooy modéré jataay bi fa tabarakallahu moom itam di borom xam di ku baax ku yittewoo ngërëmul sëriñ bi nu ñaan sunu borom defal ko ci tawfeex sëriñ Moustapha Ndiaye directeur général rajo Darou Mouhty FM moom itam moo doon coordonné diggante cellule de communication ak mboolem presse yi fi teew yëpp def na ci taxawaay bu am solo fa tabarakallahu bernde yi am solo mu des nag ginnaaw ba ñu berndeelee yaram yi ñu war a berndeel ru yi mbooleem fu waay nekk mën a ànd ak ñun kon sëriñ Abo dañu lay dee daal di jëbbal kàddu gi nga ubbi jataay bi présente ñu thème bi posé question yi borom xam-xam yi ñëw ci àddina bépp mën cee jariñu kon sëriñ Abo kàddu gaango alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa julli ci yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam sant Sëriñ Tuba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim ñi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xamante ni moo fi toog toogaayu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fii te wéral ko bu baax ba mu àggalee ay yéeneem ci dem ko bëggee di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xamante ni moo fi toog toogaayu ak Cheikh Ibrahima Faati borom Daarul Mooti di ko ñaanal suñu borom gën koo dëgëral gën koo kàttanal ba liggéey yi mu sumb naanal ko borom Daarul Mooti yépp mu àggale ko te ñun ñëpp ñu àndandoo ko ak moom di ziyaar bu baax itam mi nga xamante ni moom la sëriñ bi dénk kàddoom te lu jëm ci organisation Daaru Muxti gi mu jiite ko ñu ànd ko ak moom waaye di ziyaar bu baax suñu kilifa gu tedd gi nga xamante ni moo nekk ci suñu wet muy sëriñ Abdou Samad Mbacke ibnu sëriñ Mouhamadou Hawa Ballam ñu fas yéene seq ak moom waxtaan wi tey jii ak ki nga xamante ni moo di Serigne Gana Messere Maxtaar Serigne Abdou Samad Mbacke doy na ab tënk bu gàtt rek ci xamle ko bu ñu waxee ni moom mooy ki nga xamante ni moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllu diine yi doy na sëkk itam ci xamle ko bu waxee ni Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Mouhamadou Xawa Mbacke moom Cheikh Ibrahima Faty boroom Daarul Muxti dana sëkk itam ci xamle ko bu ñu waxee nii mooy sëriñ Hamdou Sabar Mbacke mi nga xam ne mooy imaam bu Daarul Muxti liggéey bëri bii nga xam ne itam sëriñ bi sumb na ko fii ci Daarul Muxti muy liggéeyu jumaa ji yaa salaat ko moom Serigne Hamdou Sabar Mbacke mii la ko teg ci loxoom mu nekk jëwriñ ji mën nañoo wax ni mooy ci sëriñ bi jotle woon ay kàddu yu gàtt yu am solo ci jamono yi ci ginnaaw wax ni li tax ma wóolu ko ci liggéeyu jumaa ji jiital ko ci mooy Sëñ Abdou Samad dafa doy ñëpp mu sagale ñu nag ñëw bokk ak ñun jataay bii. di sant borom baax loolu indi gàllankoor bu bare bare ci ci ci réew mi bu baax a ñëpp xam nañ ko ne bi si diine yi waxuma la sax li muy defar ci lu baax ci bokk ak ak ak njub ak tegu si mustaqim waxuma la lool waaye économiquement rek dafa laal réew ñetti at yi nga xam ne màggal amut dara amut nga am amut fenn ci réew mi milliard bare bare Sénégal perte ko kon bu ne bu ubbaat yow yow yi ko sant suñu borom te ñaan lii mu bañ amati euh, la ca ki mooy màggal gi may wax ne moom daanaka màggal gi sëñ Tuubaa la màggal daaru moom màggal sëñ Tuubaa la moo tax mu bu fekkee dara tax mu am mu am moom moo moo mbir ma sëñ Tuubaa moo màggal gi waral mooy bu sëñ Tuubaa amutoon màggal du am bu Sëñ Tuubaa amoon te màggal maam Cerno Ibrahima xamante wutoog moom màggal gu du am waaw bu ko xaman màggal topp ko te màggal gu du am waaw bu fekkente ne bu fekkonte ne ba mu demee ci géej gi dellusiwut màggal gu du am kon lépp Sëñ Tuubaa lay dal ak yéen nag du am di màggal gu am solo ndax victoire lay lay wane victoire Sëñ Tuubaa lay wane ak victoire maam Cerno Sëñ Tuubaa tubaab bi jàpp ko yóbbu ko te ku ñu mës a jàpp yóbbu ko doo doo doo doo desi moom suñu borom delloosi ko dañu wegtuwaat dañu wax ne ki dee dàqul ki daw dàqul jëla borom da koy nettali sëñ tubaab doo nga tubaab ñu nett fu mu jaar ak ñoom kon moom rek moo am victoire bis bi bisu feetu victoire sëñ tubaab la waaye bisu feetu victoire maam Cerno Ibrahima la ndax kenn ku ne xam ne bi koy bàyyi yoon muy dem di ko bàyyi njaboot gi dem boobu lu metti woon la loolu daj na ko xaw nañoo mën a wax ne li sëñ tubaab ci Gabon maam Cerno daj na ko fii ci senegal ci métit ak jaaxle ak tartaan yàlla di ko dimbale lañ ko dénkoon dara yàqu ci ñu dajewaat sottantee xalaat waxtaan xolub Sëñ Tuubaa sedd lool xolub maam Cerno sedd lool ndax kat bu fekkoon tey bi suñ bi demee daa dellu si fekk lépp jaxasoo wala dara sikk ci kon maam Cerno dana am kersa waaye Sëñ Tuubaa dana am kersa ndax ñëpp fi nekkoon mu bal mu bay leen fa jox yëf tekku jox maam Cerno kon nag bu ñëwaatee fekk lépp mel na meloon kon loolu webtuwaar maam Cerno la webtuwaar Sëriñ Tuubaa la la ki mooy ànd ba ànd jeex ànd ak jàmbaar ju am xel gën ci ànd la woon du am xel la jàmbaar bu antukum xel ab def lay doon te def kat dana def dara ngir neexal la far mettital la def pour defal lu baax far yàqal la kon ànd ba ànd ba jeex ànd ak kuy jàmbaat am xel mu ci mu ci gën yooyu taxoon sëñ Tuubaa tànn maam Cerno Ibrahima kon loolu ñëpp mën ko seere te it waxuma la sax ñëw gi sëñ Tuubaa del si waat Sénégal ak li mu fekk maam Cerno def ko def def yaaru am solo yoo xam ne léegi dañ ci war di bàyyi xel te muy la am solo loo xam ne jar na feetu jar na màggal ba ca njëkk mooy bi ko bi tubaab bi convoqué sëñ si maam Cerno Ibrahima ca Ndar ñun ñëpp xam nañ ne euh, Serigne Touba maam Thierno yebal mu dem waxtaan ak tubaab bi fi ngay njëkk a yéeme ci maam Thierno ab xam-xamam mooy wax nañ ne <coughs> bi nga xamee ne ki koy traduire ñoo ne di wax mu gis kanam tubaab bi soppiku la xam ne kii li ko li liñ koy wax bokkute li muy loolu xam ilmu nafsi la ko am géologie te te mu lu yéeme ndax ki nga bokkal kër bokk moom jotaay saa bu bëggee da xam ne bëgg na tey saa bu mere da nga xam ne mer na waaye maam te boobu keroog la njëkk mas xam meram tubaab loolu boobu yóbbu mu laaj beneen traducteur mu traduire ko tubaab bi door xam ne li mu doon wax waxu ko la ci la mooy daf ne daf ne daf ne tubaab bi bàyyi ma dem ci sëñ tubaab boo demee dana wuy waaw mu ne ko man nga ko gàmm mën na ko garanté danaa ko danaa dem boo nee boo nee dana ñëw tubaab bi ne ko léegi danaa yónnee télégramme ndax yebal na pour jàppi ko fu leen fu leen fekk fa ñu toog may laa 24 heures bu dikkee nag ñu dem ci kanam loolu li ma ci jublu mooy tubaab bi moom baax woon nañ ku ñu jàpp ku ngay borom mbooloo wala ngay borom daraja ñu ci kër fekkal wax sa njaboot dañuy humilier dañuy ihaana wax dañuy màcc ci sa kanam njaboot Sëñ Tuubaa aw ñu koy jël si ci ci ci ci ci Cheikh Amadou Ba ndëkkoon nganaat lu njëkk a jàpp semaine moo dox seen diggante kenn bi ñu ko jàppee ci digg njabootam digg taalibam dañ ko yeew yéen ko ci laaj ndax ne kon yéen a joojee mën naa am yéen yéen nañ ko Sëriñ Tuubaa waaw imagine nag bu fekkonte ne tubaab bi ñëw na ca ca ca Mbàkke def ak Amadou Ba moo ko def muy demee ndax murid dañ ko seetaan dee du am ñu ko seet mukk ñu koy def loola kon jàpp naa ne bi ñu bind nii beneen beneen façon lañ koy bind doon bi kon maam Thierno imité bu garaaw garaaw boo xam ne bu amoon rek yoon wi dana mel ne du du nii kon loolu képp jar jar na màggal ko jar jar doon dem ci moom mooy benn. ba ca topp ci ndamul maam Thierno mooy deuxième guerre mondiale bi ñu ne ki am kilifa yëpp nañ bind ay soo joxe te dañuy natt kar kenn ku nekk la am ci la am ci mbooloo lu toll noonu ngay joxe ci chef d'art bi ko waxee Sëñ tubaa dafa gàntu wax xamal na leen. man yuru may jaam xeexu leen jaam kon du ma du ma du ma yebal kenn muy dem leen xeexali ñu wax gaan mu teg mu taxaw foofu ñoo am bi tubaab bi ñu kon léegi nañu def nañ ko génne réew mi génn bi ñu ko doon génn bukti génn bu njëkk ba ndax génn bu njëkk bi exil la woon mën naa def ñaari at mën naa def ñett mën naa def juróom benn at mais génn bu ñu moom définitif lay doon dañ koy toxal yóbbu ci benn réew ñu Madagascar te buy dem day bale njabootam ñëpp lay murid yëpp dem fekk ànd ak moom maam Cerno maam Cheikh Anta ñëpp ñu dem ànd ak boobu kon yoonu murid doom doom Sénégal kon ñu ñi tey ay màggas lañu doon waaw duñ ne ay sénégalais waaw maam Cerno moo daal di woote ca njaareem daal dañuy ñu bind suñu laaj daal di bind doomi Sëñ Tuubaa ji boppam bind ay doomam murid door murid door danga bind doom bi coole yi bare bare la Sëñ Tuubaa dégg coole ba ñu ko Cerno mooy bind ay suñu laaj ci penc mi ba bindee bàggal yóbbu leen ci kees dem ci Sëñ Tuubaa ko kaay ñaanal leen Sëñ Tuubaa julee kon moom fegal na euh, ñun suñ bopp doon nga leen xeet ne bu loolu amutum bu fekkoonte ne loolu amutoon bañ génn sëñ bi ko Madagascar bu dëkki fa ñu def Madagascar la ñu dëkki kon loolu doy na ndamul maam Cerno Birahim maam Cerno sëñ Tuubaa ko mel ci boppam ko kenn nit bu fekkee dafa dem ba dépassé cadre nit comme ni sëñ Tuubaa mel faw nit ne ci wetam waaw wax nit mu ta ñàkk nit bu kenn doon ñàkk kenn yàlla du am kenn ko jàppale ndax man na lépp te tu am ko jàppale am na kuy ray ray am na kuy taw taw am na kuy joxe message yi am na yonent am na xutbu te lépp ko def waaye bëgg xamal li na ko di bu nekk nit moo tax mu def loolee kon moom Cerno yaar yooyu mu def képp doy na ko ndam te te gém téye tubaab bi ba ñëw ñu ca Mbàkke bari ñu salfaane ko doy na ndam bii ni gi mbiru yi bari sëñ bi yóbbu ñu ko Madagascar loolu doy na ko ndam kon yaari yaari cër yi jamono képp képp képp mu jar a màggal rawatina njëg nga xam ne suñ dénkoon ko ko li ñu wax ci marché la mooy li ñuy wax modèle booy liggéey dara nga muul ab dara nga muul ab muul da ngay jënd jënd bu njëkk bu njëkk moom ngay génn génn na nga bëgg a mën noonu moom ngay ngay teg maam Sëñ Tuubaa man mooy mooy mooy modèle ci yoon yoon mooy li Sëñ Sëñ Tuubaa bëgg mu yëpp mel mel ni moom rek moo ni mel wala boog moo moo ni mel ndax loolu daa ci indi firnde sama jamono jamono xëy na waxee loolu waaw te fi fi fi fi nekk tolloo ci raw dafa am benn kilifa diine goo xam ne dafa ñëw gën a soon sëñ Tuubaa mu ne ko dama gën a ci fere te boo boo dëppee nga jaar fi kooku def dem def turam bàggal daal di ñëw nag sëñ Tuubaa nga noonu lañ gisee muy nettali dem naa ci kër goo xam ne daañu lekk daañu naan waaye du jaamu jaamu yàlla dem naa ci kër goo xam ne daañu lekk xam ne daañu lekk daañu naan jaamu yàlla di jàng di liggéey mu ne kooku ci cër yi bi faatee mu ne ko waaw man ko noonu mel laa bëgg yëpp mel ne ba mu waxee dañuy jàmm yàlla di liggéey lekk rek lekkoon na ceeb bi Ibrahima Faty waaw man ko noonu mel laa bëgg yëpp mel ne. waaw sëriñ bi kon ñu mën a jàngate rek ci tomb yu am solo yi nga xamante ni yëkkati na ko moom sëriñ Abdou Samad mooy borom Daaru Moxti ñeme gi mu ñeme woon responsabilité mooy bu ko sëriñ bi di bàyyee njaboot gi booba mi ngi toll ci fanweeri at waaye coono yi mu jànkoonteel yépp ci ginnaaw tukkib sëriñ bi ba ni sëriñ bi dellusiwaatee itam gis ni la mu ko dénkoon ak yokkute gu mag na ci mu jébalaat ko sëriñ bi ci biir waxi sëriñ Abdou Samad itam ñu mën cee ràññee ak njàmbaaram sëriñ borom Daaru Muxti nekkoon koo xamante ni ragalul kenn gis nga tubaab yi booba nit ñi àggoon nañ ci ak ku musaan a gis ab tubaab da ngay am ak tiitaange ak njàqare lool am na benn xessa buñ ci li ci Mbàkke Baari ni bi sëriñ bi demee bi sëriñ bi door door ci tukki bi tubaab yi ñëw nañu fa boo xamante ni dañoo ñëw daal di laaj ni ana ana cerno bi ñu ne ana cerno mu daal di ñu daal koy joxoñ ni ko moom de fële la nekk nekkoo fële la nekk na xam ni mbokk yi nekk moom moom yoonam nekk na ci maam Thierno biñ ko génnee daal di ànd njaboot sëñ bi ñu daal leen génn génne bi leen jiitalee ba ñu sori tubaab bi daal di tiire ay bari fital nga xam ne booba nee bu ñu bu tubaab bi tiire ay bari fital rek ñëpp dañuy daal di daw daal dugg ci seen nekk ndax ragal gu ñu ragaloon tubaab bi ci jamono boobu ànd ak loolu lépp itam mu amoon ak dëgër ak ñeme koo xamante ni gu ràññiku la ak jaamu yàlla am nekkoon loo xamante ni mëneesu koo takk nga xam ni dafa boole woon ñaar yëpp liggéey ba moo kenn moom liggéey ba moo cay man waaye guddi gi itam day bokk ci ñi gën a ràññeeku ci ak jaamu yàlla kon sëriñ bi xay na bu ñu doon résumé li nga xamante moom la ñu tënkal rek ci maam Thioro Ibrahima Fati dégg nañu ci ak ñimeem waaye xelam mu sell te wane na ko bi ñu tànn soldaar yi nga xam ne moom doon jëbal tubaab bi ak ñemem responsabilité ak ak mën a jaamu yàlla am kon sëriñ Gana Messere Maxtaar dañ koy ci tomb bu njëkk bi ñu doon waxtaanee muy kan mooy as Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Mouhty su ko defee ñu daal di ñëw ak sëriñ bi ci deuxième tomb bi sëriñ Gana kon bismillah bismillahi rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi taslima bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa al Khalifa suñ borom yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal borom dëkk bi di cheikh Mahamadul Bachir xalifatu cheikh Ibrahima Fati ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam mu àggale ko te ànd ko ak njaboot gi yëpp di nuyu cheikh Abdou Samad Mbacké al imam mi nu ci jataay bii di mbégte ci bokk gi bokk jataay bi waaye di gën a dëgëral sunu yaakaar di gën a dalal sunu xel ci ay ñaanam ci nun waaye ay soññeem ci nun waaye cofeelamit ci nun ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko fi lool ba nii ko suñu boroom defe mu nekk koo xam ne al amin la ci dëkk bi ñépp wóolu ko ñëpp bëgg ko sunu borom yàggal ko fi lool ba mu nekk kiimaan di ñaana di ziyaare baax Serigne Bachiru moom Cheikh Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo yor kàddu njabootu borom Daaru Muxti gi yëpp moom it di ñaanal yàlla sunu boroom dëgëral ko bu baax te wéral ko ba yan bi nga xam ne yanu na ko te doxin yu rafet lool mu àggale ko na mu ko bëggee Cheikh Abou mii ñu bokkal jataay bi moom mi nga xam ne dafa yor pàcc bu. yaatu ci màggal gi moom ñu di ko ci ndokkeel di ko ziyaare bu baax ak Cheikh Moustapha Guèye mi nga xam ne moom la feggool te baaxu ko ànd ak liggéey bi ak ñi nu bokkal comité bi yépp di nuyu sëriñ Mahmoudan mi nu feggoon léegi ak Cheikh mu sëriñ Modou moom sëriñ Bachirou ak njaboot gi fi nekk euh, di sant yàlla nag ci jataay bi ndax ku ñu woo ñu ne ci luñ la wooyee ñu ne bisub Cheikh Ibrahima Fati ak sant yàlla la ndax Serigne Touba lim bëggoon ku ko ko defal Cheikh Ibrahima Fati daf ko ko defal ba mu gërëm ko kon ku taxaw ci mbirum Cheikh Ibrahima Fati it ngërëmul Serigne Touba loolu dafay wàcc si wàcc ci yow kon jataay bi ak waxtaan wi lépp ci biir liggéeyal Serigne bi rek la tàbbi euh, Serigne bi nag dafa indi buntu bu am solo muy Cheikh Abdou Samad. ndax borom daarul moxti waxtaane ko xajul ci sax ak dund waxuma la ay waxtu ndax jëfam rëy na taw fanam gàttul kon lu ca tànn rek waxtaane ko doy na sëkk ci melokaanam mu di koo xam ne boo ko dee waxtaane yaa ngi waxtaane koo xam ne wàccaayu wu rëy la ko sunu borom waajal wàccaay wu tedd la ko waajal la ci jëkk mooy nungug ñaan gi nga xam ne sunu boroom nungu na ñaanuk sëriñ bi mu doon ñaan boroomam te jaaree ko ci Cheikh Ibrahim ndax doon na ñaan ku bokk ci askanu Maam Balla ngir jàppale ko ci yan bi ak liggéey bi loolu yi dana ca doy xanaa bi borom daaru feeñee jamono lan la ko Serigne Moussa Ka waxee wala lan la way juróom wa Serigne Mbacké Mor Sëri wax Serigne Touba santal yàlla ki lay yor yan ba kon day mel ni moom ak ñëwam jamono rek dafa tàmbali am lu mu lu mu wone sëriñ bi waajal ko ndax xam na ne euh, am na ay responsabilité yu rëy yu war a ñëw ci moom waajal ga la ca jiitu mooy mu senge ay cëram ba nga xam ne fii cër yi baaxoo jaar ci ab safaan di jaar tàggat na ko ba ñaan boroomam ba sengee ko waajal ko it beneen wàccaay mooy jàngal ko ba mu géeju ci xeeti xam-xam yépp mu yaral ko boppam kon sëriñ bi taqoog moomit nga xam ne mosul tàggoog moom lu ci waxtu ndaw waaye lu ci waxtu mag te loolu waxi sëriñ bee mos la juuyoog moom ci wenn waxtu nga xam ne fu sëriñ bi mas a jëm jëmm jii nuy fàttaliku di ko waxtaan di Cheikh Ibrahima mu ngi nekk ci gannaawam di ko sant di ngàbb ab daram di ngàbb sa talaam di tàggatu ci wet gu nekk yitte ju sëriñ bi ma sa amit Cheikh Ibrahima mii mooy ki nga xam ne daana ko ànd ak sëriñ bi di dox yitte jooja ba yitte jooja sotti nattiinu biir nattiinu bitti ndax bu dee ci wàllu xam-xam ku ne gis na ne yabaloon na ko ci yenn béréb bi xam-xam yu ràññiku yi waaye la mu yóbbaale ci ay abyaat ak wane ko ci aw melo jàngale na kii kat géeju xam-xam la goo xam ne eh, ku leroowul ak moom doo xam li mu làmboo lu mu doon bokk ca it béréb bu sëñ bi am mu jiitu fa sancal ko ko loolu it ci aw wàccaay la woo xam ne yi li sëñ bi doon nettali ci eh, bi mu ñëwee li tax mu mën koo yanu dafay mel ni am na ay fondement am na ay looloo tax béréb bu sëñ bi ma sa ba muy yeesal Mbakke sañ ci Daaru Salaam ba muy sañ tuuba Touba Mbakke Bari ba bi sëñ bi nekkee ci géej gi di sañ ci lu Daarul Manaan lépp Cheikh Ibrahima moom mooy ki taxawe woon melokaan woowu waaye it sëriñ bi doyloo woon ko wóolu ko ci lépp doyloo gi moo tax keroog bi coow loolu amee tamit sàkk ku dem ndar loolu da ca fekk ak njàmbaar fekk ca aw fit waaye fekk ca baat bii ñuy tuddee murid saadix mandarga yi ko tënk yépp di ñeent te sëñ bi jàngale ko bu ci nekk borom daaru daf ko remplir bi ci njëkk mooy bëgg kon bëgg sëriñ Touba moom daf caa jeex lool ba tax bi ko sëriñ bi sa santee loolu cofeelam ci moom ak bëggam ci moom tax mu mën a taxawe noonu ba ca ñaareel ba mooy jëfe ndigal nga xam ne xëy su warat nag fu ndigal li wàcce te jamono boobu defe naa ba demee ci ilhamu salaam sëñ bee ngi wax ne jamono boobu de nit ñi bu ñu gisee sax ab tubaab dañuy jàpp ne malaakam suñu boroom lañu gis mu toll ci at yu néew muy fanweeri at ci zahir mu yabal ko mu egg wane mat wane ngor wane fulla wane aw fit ni ba lépp xew loolu it ci wàccaayu sëñ bi la ab tàggatoom la waaye sëñ bi di tàggatoog moom it ba talewaat ko nga xam ne bu masaa xëy waxtu wu ne bëtam mu ngi tege ci doomi sëñ Touba mi ngi tege ci njabootu Serigne Touba mi ngi tege ci ndénkaane Serigne Touba nga xam ne waxtu wu nekk fi ngay xamee ak dalam ak njàmbaaram mooy ni mu mën a maîtriser ba noppi ànd ak conscience tranquille ba mën a gérer li ko sëñ bi batale woon nga xam ne bu fekkoon ne bi sëñ bi demee ci liggéey bi borom daaru dafa féete woo rek di bay di leen jox ñuy dund wala mu féetewoo di leen jàngal wala mu féetewoo ne ñoom di leen saytu lenn lu mu ca defoon rek dafay doy sëkk ak njàmbaar dooy sëkk melokaan waaye mboolem lu kilifa mboolem lu way jur mboolem lu nit war a taxawee doomu aadama borom daaru loolu la taxawee nga xam ne yemu ca biir njabootu sëriñ Touba gi rek ndax koo xam ne kaamilu Cheikh Moustapha fekk na sëriñ bi ci géej gi te sëñ bi ñëwagul kon loolu wane na li mu fi batale woon bëgg nu jàng bëgg nu yar leen na ko doon def waaye jëmi yoon wit mu nos ko nosin woo xam ne teg ko ci aw yoon ci li sëñ bi batale woon lépp nga xam ne rabbal muridina wa aqral na nga xam ne yar murid yi ba noppi jàngal euh, njabootu Sëriñ Tuuba euh, borom Daaru Muxti mooy jàmbaar ji nga xam ne euh, melokaan bi ko suñ borom jagleel am na ci boroom xam-xam yi ku ko doon tagg wax ne axlaaquwul quraan wa chiimatul huda wal xaq day danuhu bila kitmaani nee na bu fekkoon ne da may wax ne ma kan mooy borom daaru rek kan mooy maam Thierno nee mu ne la maam Thierno de boo ko bëggee xam mooy borom jikko yu sell nga xam ne jikko yu borom daaru mooy alquranul karim te defe naa taggin woowu moom lañ tagge woon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ba ñu laajee sayyidatuna Aïcha kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa lan mooy jikkoom mu ne jikkoom mooy alquran moo tax ba mu koy tagg ba yàgg ba wax ne jikkoom mooy alquran dëgg mooy aw melokaanam waaye daa dem ba yàgg mu ne sax wa bi kulli aw saafil xadimi daal daana boo bëggee xam borom daaru daal léegi ngir mu rek mu ne la wépp melokaan woo xam ci Serigne Touba jikko joo xam ci Serigne Touba jikko jooju mooy jikko yi borom daarul mati mu ni mooy kan mooy kan moo xam ne hadayta xaqaqta saddaqta sharaata fama fi xubbi ahmadu cheikh yi man yu daanik loolu mooy boole liggéeyam boobee ñu doon wax boole jaamu yàllam ngam doon wax boole kook melokaan yi sëñ bi bëgg ku ni mel mu mel noona nga xam ne dana caw ca yoonu boole sharia ju leer ak xaqiqa ju leer ak melokaan wu mat waaye ba ma fi xobbi ahmadu cheikh ma yu daa niik mu ne ko nag ah waaye bëgg sëñ Tuubaa nag moom kenn du la lim di lim naan diw bëgg na sëñ Tuubaa diw bëgg na sëñ Tuubaa maam Cerno bëgg na sëñ Tuubaa wala moom kay yow yaay ki beru koo xam ne kenn du la fekk ci euh, bëgg sëriñ Tuubaa mu ne waaye yëbu ci nag yashadoom duniyaa tiibu xarwuliha mu ne borom daru da caa boole woon nag won ginnaaw adduna ak teey teey adduna yëpp borom daaru woon ko ginnaaw am lu mu doon ci Serigne Touba li tax jikko jooju Serigne Touba dafa wax yonente bi alayhi salaatu salaam na ko aw ma genn bëgg gu may settantal lu may roy la di xañcu sa mbir ci sama xol ak sama jëm jaayanteeg yonente bi alayhi salaatu salaam di roy yonente bi alayhi salaatu salaam borom daaru it noonu la def ta xayral qadimi waqta dayta bii fi l qawl wal fi'li xatta xusta bushra jaayante nga ak Serigne Touba waaye mi ngi koy jaayante moom di ko roy nag wax waxiinu Serigne Touba mooy wax waxiinu Cheikh Ibra Fati jëfiinu Serigne Touba mooy jëfiinu Cheikh Ibra Fati ba làmboo nag mboolem ngëneel ak tedd ngay Serigne bi lépp borom Daarul Muxti eh, dajale melokaan yooyu. mooy koo xam ne la ko benn waykat wax na ko bushraka yaa Cerno Ibrahima bushraka foqutal na xidman nahu mawlaak wax dëgg yàlla dal gaa ji jiitoo woo leen fii sax yaa ngi leen jiitoo fa yàlla suñu borom fa nga leen rawee yow maam Cerno jiitu leen mooy koo xam ne doy na ci ay mandargaam on dudil ay man du ay caaxaan moom la sëñ Tuba tuddee përëgum nday jooram te saxal ko te wéral ko waaye yamu ci it sëriñ bi ci boppam moo ko tuddee almuridu sadiq tudde ko almuridul wafi ba noppi tuddel ko boppam ayyuhal masbuh bi hubbina nga xam ne lu ci nekk da ngay dem fekk biir mbindum sëriñ Tuba mu jàngale ko wane ne melokaan wu mat yii ak jikko yu sell yii moom la Cheikh Ibrahim borom Darul Muhti dajale te melawaanoon ko bokk ci melokaanu jàmbaaram yooyu it nag mooy responsabilité yi ko sëñ bi batale woon yëpp dénk ko dara mejjul tey la histoire dàq nettali tey la àdduna gën a ubbiku tey la gët yi gën a tege ci mbirum sëriñ bi waaye mënee suta taasal dara ci li sëriñ bi batale woon maam Thierno dara mejjul nga xam ne lépp matale na ko caw doxin ci demono bu dëgër nag li tax dig njàmbaaram euh, nasaraan bi daawuñu ci yem daanañ ci boole bëgg di ko xiixaan di rëppatali fas di ko teggi fetal ngir bëgg koo xiixaan am na ci bés boo xam ne sax dañu ko mel ni lu koy jël si bi ñu ko waxee soxna Faati Isa na ko ceerno mii ak nasaraan bi de waaye ban baat la ci tontu dana kooku de ko yar ku mu yar doo ñàkku fit nga xam ne ko donn na ci Serigne Touba fit wa ak ngor ga ak jom ja ak taxawaay bu rëy bi waaye mu boole ci it nag euh, borom daaru moomu ñuy waxtaane tey musul wan benn dëkk gannaaw ci bu ko sëñ bi toon digal ko ko sëñ bi ne ci tukki ba jamono jafe tax mu ne naa fa delluwaat ñetti baat yi ko sëñ Tuubaa dénkoon ba muy dem di tàggatoog moom ci Mbàkke Baari ñetti baat yooyu ko xam li muy tekki rek xam ne bu ci nekk borom daaru sàmmante na ak moom muy rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom muñ moom dana metti léegi-léegi waaye lépp muñ na ko ba dara ñaawul nii mu def taxawaat wan melokaan mooy ci borom daaru tay na bakkanu boppam tay la bakkanu njabootam tay bakkanu way juróom ngir bakkanu doomi Serigne Touba jum ko lénk loolu it defe naa doyoon na sëkk aw melokaan ndax euh, bu fekkoon ne borom daarul moxti bi ko Serigne Touba batalee lim ko batale lépp mu taxawe ko ci biir fu jëm mu jafe waaye moom ma ngay dégg rek nekkal ak njaboot gi tuubaa bu jàppandee te loolu euh, li ci gën a doy waar si njaboo mooy bataaxal bi ko sëñ doon waxee maam borom saam la ko doon bind muy sëñ maam Mor Jaara magi sëriñ bi bataaxal boobu ba mu ko koy bind dane ko na nga yërëm njaboot gi njaboot gi nañ la màggal na ñàkk ak yow na ngeen leen di maslaa di di di di di tegante ay cër tey bañ a juyoo ci dara maa ngi leen di digg ragal yàlla ak jaamu ko waaye ba mu agsee ci responsabilité yi muy jox borom daru dana fal yakul ayal ma ibrahima fi Touba in amkana wa ila fi ay makan incha allah njaboot gi nag moom nañ nekk ak Ceerno Ibrahima Touba bu fekkee Touba jàpp ne la bu jàppandiwul nag béréb bu soob yàlla loolu it lii indi xew-xew boobu keroog bi tubaab bi waxee borom daaru da ngay tasaare daara yi tasaare mbooloo mi wala lan ma teg ko ci sartub taal daara ji rey mbooloo mi lan la borom daaru tontu toxu gi mën naa am ndax sëñ bi ma ko digaloon te bu ma ko digalutoon du ko def waaye jëmmi taal daara ji moom balaa am da jaar sama kaw ba noppi door koo def ci koo xam ne ka nga wéeru woon muy sa yaakaar yóbbu nañ ko te fañ ko yóbbu mosoo gis kun fa yóbbu dellu siwaat ñu ne njabootam nga koy seet ak ñu ngi koy siyaare yow nga des fi yor responsabilité yooyu toll nii ba noppi tañ bëgg mbiram mépp jeex ta nga ne fi mu jàmmaar yow am lu mu jubloo yow nga tontu ko tontu lu dëgër la sëñ Tuubaa tontu woon ca biiram Ndar loola mooy melokaanam te sëñ ba muy tontu dafa xoon ne hadamtuma banaahu kullu man jahat min al fira bi xulhu walaahu hadamtu bil ilahi bu nital fira wala ulaaxi abadan man kafara loolu doy na rek kon ne bu nee la jikkoy borom daaru mooy jikkoy Serigne Touba mooy tàggat ga nga ko tàggal ci xam ne lu dul yàlla du lor lu dul yàlla du jariñ moo tax mu am dëgëru fa séene jëfe ndigalu sëriñ bii ba mu jaral ko ñàkk bakkanam jaral ko ñàkk lépp waaye li sëñ bi bëgg loolu danaam loolu loolu wane na rek taxawaay bi borom daarul moxti am ak melokaan ma maam Thierno daarul mën naan dafa ma nettali ne euh, borom daaru def néeg bu mag def ko ci digg bi def ko buntub sarale def ca ginnaaw kees def fam néeg boo xam ne fa lay def bagage Serigne Touba wut ponkal yoo xam ne lay seen yitte mooy waxtu wu di ko yeesal ak di ko taxaw ak di ko soytu daana yëmu ca nag waxtu wu ne mu rayalu gàtt njabootu Serigne Touba gi ngir la leen Serigne Touba dénkoon ci bañ a boonu ndawal ak melokaan yëpp borom daaru di ko matale nga xam ne kon lépp lu ko sëñ bi dénkoon ci matuk melokaan borom daaru da ko da koo matal ba noppi la la cay gën a convaincre mooy ñi ko sëñ Tuubaa batale woon boroomi xam-xam lañ miin nañ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa tàggat leen yar leen ba seen bët fees ci gisatun dara waaye bi nekkee ci borom daarul moxti amul benn sebre boo xam ne kenn dana ko dandal ci melokaan woowu nga xam ne sëñ Mouhamadou eh, Ahmadou Diaw Paxa am na lettre bu mu bindoon Serigne Touba borom daaru mooy bi Paxa lakkee loolu sëñ Thierno ma ko wax ba noppi wan jox na ma lettre bi ma nga tàmbalee ci alhamdulilah ila si jaaxale ni bi darajat fardin abdul xadimi min rijalillahi ca biir lettre ba da cay wax day wax borom daaru ba yàgg mu ne ko maa ngi lay jottali nuyoo Cheikh Issa Diagne mi nga xam ne du roy ku dul sa roy teef ba muy Serigne Touba na ko yow nag Thierno du ma la jottali nuyoo ku la bañ lu tax du ma la ko jottali mooy ku la bañ lu mu jaay fa yàlla mu lamb nga xam ne kon yàlla du reconnaître loola ci ku woon ginnaaw a Cheikh Ibrahim nga xam ne ñaata Thierno la sëñ Ahmadou Diaw Paxa tuddee borom daaru te kii bu ne sëñ Ahmadou Diaw Paxa mooy kan sultaanul arifin mi nga xam ne bi mu ñëwee ci sëñ Tuubaa la mu ko jëkk a wax ataytu ko yaa xutbal wara mutagayiba min al ahli wal awtaani xayraka naasiya walastu ubali bil baraya jamian ida gadibi wala in kuntu radiya maanaam bu ñëpp meree sëñ bi beeg faalewu ma kenn kooku lu mat juróom benn wala juróom ñaar tuddal na ko ay ay ay ay maam Thierno boo demee sëñ Aliou Diouf Lambaay ñaata borom daaru la tudde boo demee ci Cheikh Issa Dieng nga xam ne sëñ Tuubaa daan wax ne Mbàkke Dieng Mbàkke Jaxate Thierno Ibra loolu li muy tegtal rek mooy melokaan woowu melowoon sëñ Tuubaa tàggate ko ko bi nit bi mag ñi noppee gi sëriñ bi it ci saayir nga xam ne Cheikh Ibrahima Diop nee na ca Mbacke Bari la ñu leeral nañ xilaaf ak borom daaru fii Mbacke Bari la naa baanaat xilaafatu loolu la muy tegtale daal mooy euh, ku sëñ Tuubaa defar ba wone ko nga xam ne day wax ne ku bëgg am sama ngërëm loolu dégg naa Cheikh Abdourahmane di nett loo xam day wane jëmmi sëñ bi nim nuróole mbiram ak maam Thierno mooy ki takkoon ñaari jaaro yi ñëw ci sëriñ bi sëñ bi ne ko ñaari jaaro yi loo ci jublu mu ne ko benn bi lay sa bos benn bi di maam Thierno mu ne ko dangay seet benn bi nga ciy jël nga féete woo ko tekki ci benn bi waaye bu ca doon yem dane ko maag Thierno ku nu bëggee liggéeyal da nga koy tekki sunna su rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon xam nga mënoon na ne ku ma bëgg a liggéeyal waaye maag Thierno ku nu bëgg a liggéeyal da nga koy tekki sunna yonente bi alayhi nga xam ne lam ne woon fee wama abahu ya baahu nga xam ne lu sëñ bi bëgg mooy li rasul lay bëgg lu rasul lay bëgg mooy li señ Tuubaa bëgg loolu day walaabal fii fi borom daaru loo ñëw fekk borom daaru bëgg ko rek mooy bëggu sëriñ Tuubaa lu sëriñ Tuubaa bëggit mooy bëggu boroom daaru loolu mooy na ci lañ mën a indi ci Cheikh Ibrahima Fati sëñ Gana ñu ngi rafetlu kàddu bu baax am na solo lool waxtaan wi ñu mën cee déggee ni tënkal nga ñu ci diggante bu gàtt rek kan mooy Cheikh Ibrahima Fati borom daarul Moxti résumé nga ñu li ko tàmbalee ci ak gane àddunaam ñëw tamit ci jikko yu tedd yi nga xamante ni moom jikkoo woon na ko moom a Cheikh Ibrahima Faty borom Daaru Muxti nga tënke ko ci genn kàddu gu am solo goo xamante ni bi ñu laajee Sayyidatuna Aïcha jikko yonte bi lan la waxoon muy jikkoom mooy alquran kaana xuluquhu alquran bu ko waxee daal di jàng xad aflaxa almuminuuna allazina hum fi salaatihim xaashi'uun ba aaya ba aaya yooyu yëpp jeex muy wane rek nii kon a Cheikh Ibrahima Fati jikko yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woon Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba royee ko ci e, yonente bi sallallahu alayhi wa moom la Sëriñ Tuubaa defaat ci moom ñu jàngate itam ci Sëriñ Gànna li ñu indil ak dëddoom àdduna muy lu am solo nekk xam nañu yàlla daf leen defal àdduna yëpp duñu ko gis duñu ko bëgg duñu ko bokk na ci li koy firndeel li muy bàyyi ko Mbàkke Kajoor te ci Daaru Muxti ni ko ni dëkk ba neexee woon ndax moom lu mun taxaa ni maam maam Thierno mooy exemple bi nga xamante ni ah, murid yëpp lañ ko war a roy kon loolu lañu tënkee ci sëriñ Gana kàddu yu am solo yi nga yëkkati alaaqaat yi nga xamante ne amoon na ci digganteem ak ñi ko waroon ci ay mbokk mbokk mbokki mbokki jullitam ak kilifa yi nga xam ne loolu sabab na euh, sababoon na ci ñu bari tuddee ko ay njaboot ak seeni doom lépp di wane jikko yu rafet yi mu làmbaayoo woon ndax yonent bi salaam yàlla daf ko wax ci alquran ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan xalisal xalbi lan faddu min xawlik yërmaane ji nga amee ak baax gi moo tax ñoom ñi ñu mel ñu mel ni ñu mel ci yow waaye tam mën nañoo wax ni jikko yooyu borom daaru moxti làmmaa yowoon kon moo waral euh, ñoom ñëpp dëgmaloon ko bëggoon ko doon ko tuddee seen i njaboot jaxasoo woon ak moom bu baax a baax baax ñu ngi lay sant Serigne Gana ci waxtaan wu am solo bi nga xamante ni indil nga ko ndax ñun ñi doon taataan ñëpp xame nañu ci kan mooy a Cheikh Ibrahima Faty borom daaru moxti ñu ngi lay ñaanal suñu borom gën la cee dëgëral bu baax xam naa kon dañuy ñëw ci deuxième tome bi rek ci sëriñ bi mu ñu mooy ku nekk xam na dafa tombe ak liggéey yu rëy yoo xam ne sëriñ bi daf koo sumb ci Daaru Moxti muy taxawal juma Daaru Moxti ji mu fas yéene koo yeesalaat xam naa kon dañuy ñëw ci deuxième tomb bi rek ci sëriñ bi mu ubbil ñu mooy ku nekk xam na dafa tombe ak liggéey yu rëy yoo xam ne sëriñ bi daf koo sumb ci Daaru Moxti muy taxawal juma daaru moxti ji mu fas yéene ko yeesalaat bi ko sëriñ bi xalaatee itam sëñ Abdou Samane Mbàkke mi ñu jàkkaarool la def jëwriñ ji mu fas yéene ànd ak mbokki taalibe bi yëpp ci liggéey bi ngir sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee mu tombe ak màggal gi mu di ko mu di ci soññee ak di ci fàttali ñëpp te yaakaar naa képp ku lay woo ci liggéeyu yeesalaat jàkka wala tabax jàkka dafa laa bëggal yërmaane yàlla rek ndax ku nekk xam na importance bi nga xam ne tabax jàkka am na ko ci islam xam naa sëriñ bi dana ci gën a ñëw dafa bokk ci li nga xam nit ki dem aljana itam dafa bokk ci lii tax itam nit ki euh, euh, bu demee ba jóge fii la mu ca defoon tiyaaba ja du dog mukk di ko fa fekk dafa bokk ci tiyaaba yi nga xamante ni bu nit ki faatoo Euh, dafay des ba faaw moo dafa nekk li ñuy wax jaariya xam naa sëriñ bi dana ci gën a ñëw ñu dégg ko suñuy kàddu rek moom sëriñ bi mu ubbil sëriñ Gana ci soññee ci liggéey boobu nga xamante ni sëriñ bi da teg na ko ci loxoom mu liggéeyu jumaa ji bisimilah sëriñ ubbil sëriñ Gana ci soññee ci liggéey boobu nga xamante ni sëriñ bi da teg na ko ci loxoom mu liggéeyu jumaa ji bisimilah sëriñ bi. bisimilah jërëjëf sëriñ bi sëriñ Abo waaw li muy tàmbali suñu wax ah, ji nga xam ne sëñ Bassirou am na ko ci daal di toog rek jëm ci yaar yoo xam ne ci liy doxal islam islam la bokk ak liy doxal yoonu murit mooy ab jàngukaay ak jàmmukaayu yàlla. institut la njëkk njëkk njëkk natt fii ñu ci kër gi ginnaaw gi ñu tabax bii dañ fa tabax benn institut boo xam ne danañ fay jàng ba am baccalauréat jàng ci fii fii la bokk loolu tabax jaamukaay yàlla xam ñu mën ñoo jàkk jaam yàlla waaye soloy jàkka moom dafa dafa dafa dem lu bër ndax suñu borom a ko santaane tabax yàlla mu nekk wax nañ ñu koy def mooy képp ñu gëm yàlla képp xam ne yàlla moom seen alal yàlla lañ am yàlla ko jox mu ne ñooñu ñoo tabax jàkk mu ne ñoo tabax juma ñun ñëpp xam nañ ne euh, jullikaay bi njëkk tabax ci àdduna ci lislaam mooy jumaay Madinatu Munawara waaw yonent bi alayhi moo ko tabax ànd ak ay sahabaam ak i taabiyanam wax nañ bi mu koy koy tabax sax moom yonent bi boo koy séenee ci fi ñuy liggéey nag mel ne ber nga koy teg waaw ndax taq ndax tilib wax ne yàlla wenn benn xeeru mag di sakk-sakk gan waaye bëggoon nga ci loxoom mu ne ko baba ndax yàlla mu leen ko sant moom ko sant li ngeen bëgg laa bëgg waaw loolu dafa jàpp jumaa ji àgg ñu ci julli boo ba léegi nag ñu baax ñi euh, bëgg yàlla xam ne li am yàlla it ko def ñuy def lu ñu man ngir euh, tabax jumaa kon ku bëgg dab bànneexu yonante bi euh, alal war a ci jumaa waaye nag li ci gën a fër gën mooy kii ñu topp muy sëñ Tuubaa fa mu tegoon jullikaay fa mu tegoon jàkka waaw baaxoo nañ senegal feneen fu Sénégal fu mu njëkk a dem bala fa def ba néegu boppam def néegu bi yàlla waaw waaw fu mu wàcc rek bu fekkee suba la wàcc balaa ngoon daf jàpp ab jullikaay bu bala bët sax dama jullikaay bi mu ñëwee Touba gii ci fii penc mi nekk bépp ak bépp nekkoon fi ba mu toogee mbaarum jàkkal fi ñu def ay ngeer lañ ko ràbbe wax nañ ba mu duggee si jàkka ji julli fa mën naa tisbaar la wala takkusaan bi mu génnee ba taxaw ci bunt bi booba yére perkal la sol waaye li mel ni xorondoom yooyu mel ni ngar dañ ko samp samp ba boo ko séen da ngay def yére nat la sol waaw kon ko jëli ñor na ko bi mu ni mee gabon ba mu àggee daal dafa jullikaay bi dafa nekk si borom te xam nañ ne Sëriñ Tuubaa mosuñ ko permettre mooy mu yor ngànnaay wala dara du yor xepp du yor jaasi waaw saatu képp la yor muy saatu mi sotte saatam soosee ci la daggee bant ci la xàññ ba def jàkkaam jooje moo noddal boppam mu leqal boppam julli waaye ba mu noppee la ko tubaab bi ñu ne ko amul autorisation autorisation def jullikaay te la amul ndigal waaye kenn na lu ko naqari loolu ndax jàpp na yàlla bi moom suuf si su ngeen ko defalum néeg te doo tàggu kenn ñu yàlla maasale jooje waaye yàlla moom li mu lépp da koy da koy da koy jaay yàlla yaar képp lay lay may may ruuw ak nubu li ci jox njëg mu daa jox suñu tubaab jumaam yu da koo liggéey da koo jënd ci jullikaay boobu ñu maasaloon ca Gabon loolu ko moom la ko suñu borom fay jumaa ji Tuubaa ko moom la ko fay jumaa Njaaréem loolu ko fay jumaa ko fay jumaa jumaa Daaru Musti ji kon képp kuy tabax jumaa yaa a bëgg waaye kii ñu ko def nag mooy borom Daaru Musti moom itam dafa tegg tur bi moo ko bëggoon jàkka ko jumaa Tuubaa ji bu jëkk def jundim nguur jumaa Tuubaa ji ko tam mosu fay julee fu dul jàkka soo julli fajar bu xasee julli ba ñëw ci penc bi lay toog doo julli gee door gu bët kër gi bi mu ba ak mag jàpp ko sawaratu jóge bi ak ci penku defal mi ab jullikaay mu natt ko mooy fii mooy jàkk yi ci kër si Moussa gi ba mu génne xool ko dafa xeble wu daal fa commencé di julli daal na ko man dama julli si jàkk ba julli fu julli waaw daal commencé julli na fi man ñaari ay bis door nañ nañ woo si Abdou Khoudoss mu si Abdou Khoudoss mu ñëw dem jiite mu di ko jiite si booba dëkk bi kenn lu si ko booba si këram gi doon këram këram ne woon pour mu ñëw julli si day day wër bu sonn maam ci nañ ko ko dagg bunt fii ci béyti muy bunt bi jëm kër si mun mun ñëw julli si ne fa julli fa julli fa julli ba wàccub liggéey kon kooku moom jàkka ñor na ko kon ku mbiram ñor rek war taxaw ci jàkka sëñ sëñ Basiir mi tam ka saalika noonu waaw tey ginnaaw yoon tamit dafa ne ko tabaxal yàlla mu nekk yàlla tabaxal la nekk ci àjjana waaw kon bëgg bëgg bëgg bëgg dugg àjjana taxut mu tabax jumaa ji ndax tabax na ñaari jàkka ba demee ci këram gii ci ci dëkk bi def na fa jàkka ba demee fee ci tawfeex def na fa ja na fa jumaa kon moom loolu doy na ko paas àjjana waaye bëgg dem yu bari ñoom moo tax mu ne mu songaat lii na ñëpp nañ ci def seen def seen bopp waaw paas paas paas àjjana dëgg na ko ba ndax tabaxal ni suñu borom ñaari nekk ah, kon liggéey la boo xam ne ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ngi ciy soñ ñëpp te ah, maam Thierno bi bi ñu koy defal ah, jar na ko lool ndax leble na ko <coughs> dañuy fàttali ko rek ci ginnaaw <coughs> bi bokk ba ñëwee xiif metti waaw ñu amul lu ñu lekk waaw ñuy kër tas ñi seen njaboot dem ñi da bàyyi seen njaboot bo moom rek moo moo fi yor dara ci wax it xam naa dana metti ñu bari tubaab bi dafa daal di wax ne dañ génn benn slogan ne mbokk dimbali mbokk waaw kon nañ dem ci maam Thierno Ibrahima ndax yàlla ko lu mu dimbalee bokkam daal di woote kon na ñëw daal joxe ay sàq ne ku ñëw na bojj jël te ña fa nekk di bojj ba leen jox añ di leen jox reer di leen jox attaay di leen jox gura ba nga bojj loolu doy dund nga ñibbi sa ba ñëwee di indi kii dina ko da ngay signé ndax bu amee fale dafa ne ginnaaw dañuy am na ko ñàkk man du ma leen lebal yàlla mi nga xam du ñàkk mukk lebal naa leen ko kon kooku ko defal ko defal dara rek yaa ko yaa da ñaar baat bi xiif bi fii ci euh, pression bi ci Louga euh, pression yi di moom ci moom tubaab ci moom la tubaab bi ñëw mu dimbale waa pression yi waaw euh, jàpp waxul ne ñooñu kat dañoo dëng moo tax ñu tëj leen waxut ne man naam ay duñu ay murit man waxut ne duñu ay julit dafa jàpp ne doomu aadama la yàlla li bind melal nañ mel yàlla bind ko mel ko ni jox ko li mu am kon yàlla am na ci wàll moo tax mu loolu loon dimbali kon kooku ko bu ñuy liggéey ab liggéey ci moom waaw kenn ku nekk war def sa loxo di yàlla moom wax du teel gën aw ku tabaxal bu nekk yàlla waaw yàlla tabaxal ci àjjana waaw bu fekkee mu tabax la nga def rek dañuy jàpp ne tabax nga waaw ci rek dañuy boole ko tabax tabax te àjjana ñëpp wut kon daal ñu ngi ci woo ñëpp lu euh, ci soññ ñëpp lu ci soññ ci bopp waaw fas ko ànd ak sëñ bi ko ñaanal mu ni mu ko tàmbalee ci weer bi la ko tàmbali dina ko àggale ko ba àggee mu sonn jàngukaay bi jàngukaay ak liggéey a ñàkk kon sëñ Gana loolu mooy liggéey bi nga xam ne bi sumb ko waaw te it jàpp naa ne bi mu koy bi mu koy ko def alalam waaw moo ci ñu ko def alalam daa joxe ne nit ñi ñëw leen joxe tey jàpp naa lam joxe mopp mopp lu mbàyyi këram bu fekkee joxut lépp waaw <laughs> yaakaar naa mbàyyi këram lu néew lay doon bu fekkee joxut lépp kooku koo jox jox wóoree na yoon bu doon tabax leen rek tey la maam ñu ne waaw waaye dafa jox la maam donc ba pare na ñu leen tabax waaw kon soññ na boppam soññ soññ soññ jullit ñëpp kon daal euh, jumaa jaa nga noonu néegub suñu borom la ku ci def dara rek suñu borom daan la ko fayal daan ko daan ko fayal te sadaxa jaariya la daal dinañ tukki ku fi def lu baax rek jox la si wàll ku fi jàng alxuraan nga am ci wàll ku fi julli nga am ci wàll ku fi itikaaf nga am ci wàll loolu moom dara gën ko gën ko gën ko gën ko te loolu dañuy wax toujours léegi xam nga euh, ramu ramu ramu ramu ni aju bu ko àjjana euh, dañ koy contesté waaye lu yombal leeral la waaw yow ginnaaw li nga am ci lu baax ëpp na la yombal xiyaam suñu borom du ko sànni du ko neenal ginnaaw lu bon lu baax ko neenal yow la koy jox yaa seet ko la neex nga jox ko waaw ramu lu yomba yomb la boo doon dem tubaab tey yor junni passe bi téeméer passe téeméer juróom ñeenti ma ko kon ñi def lu baax moom seen lu baax du suñu borom ko mukk ñoom lañ koy dencal waaw yomal xam faaw ñu jox leen ko bu leen ëppee ñu set ku leen ñor ko kon nag aw aw bàq bu tooyee noonu am ku ci bëgg a ji na nga ci ji suñu borom ko toog suñ suñ kon ñu ngi sant sëñ bi bu baax xam naa dañuy jox ko kàddu gi sëñ gànna sëñ gànna bi yëkkati ci liggéey bi. mel ni kon. Euh, ni ko Cheikh Abdou ci taxawaay bam solo bi nga xam ne Cheikh Mamadou Bachir ni xalifatu Cheikh Ibrahim daf ko woote te muy yeesalaat jumaay Daarul Maati mu mel ni ku dégg waxtaan wi sëriñ bi ubbee ak li fi jaar dafay mel ni kenn ku nekk day nekk bor ci yow boo xam ne da koy delloo siwaat ci borom daarul moxti ndax liggéey fi jamono toll lislaam yitteem ju nekk mooy waxtu ne taxawaay bi wone di màndargaal dunduk jullit ñi diine lu ca jullit ñi gën a taxaw rek dafay gën a am solo rawatina nag ab taalibe bi bu sëriñ bi wootee santaane jëf rek a ca war te sëriñ Touba yàlla fay na ko ni ko sëriñ bi waxee léegi li wax ne barkeb lislaam dëgmal na ma loolu day mel ni kon lum lu mu sàkkuloo ba jot ci barakatul islaami nahwi aqbalat wa man xalaw ni fil baraaya xajilat barkeb lislaam boobu ko dëgmal mooy ci wéet ak ko la yemale béréb bu mu mën a doon lam fay jëkkat mooy wéetal yàlla ak taxawu boroom borom daaru nag da cee am moom cër bu rëy ci loolu ci sëriñ bi ba tax bés ko wooteelee bu fekkee ne taalibe bi dañ naa ah, yow de kii nuy wooteel ci dëkkam di keroog bi sëñ bi waree dem ci tukki bi moom la jëkk a yabal na ko demal ma moom la batale woon ak njaboot tamit muy fanaan ciy sàq tubaab yi di taali këram lépp ngir sàmm li ko Serigne tubaab batale woon kon jëf la joo xam ne lu baax ku ko tegtale dimbali nit ñaa tax nga di ko def ndax Cheikh Mamadou Bachir ak njabootu borom Daarul Maxti gi muy ñim bokkal Cheikh Ibrahim bu doon luñ bëgg a taxawee rek mën nañ koo taxawale seen seen bopp waaye dañuy borom yi njariñ yoo xam ne dañuy bëgg ñëpp li sëñ Tuubaa di ñaan yàlla naan ko jariñal nit ñi ci man te def sama njariñ mu mel ni ab taw nga xam ne waame lay doon woo xam ne day daj fépp jariñ ñépp loolu mooy waral soññee boobu ci taxawaay te wax naa ko bërki dem bu ma ne Cheikh Abdoul Bachir toppee na nañu war a toppee te gis ay jeexintalam ak i waxtu wu nekk luy jariñ mbindeef yi rek moo tax muy woote ak santaane euh, la Cheikh Baara xaadimu rasul waxoon di lu daw yaram ba muy kañ borom daarul moxti di ko kañ ba yàgg mu ne ko yow sunu baay bi nga xam ne bu loon ak yow duñ làmbooy teggin duñ mën alxuraan loolu lu daw yaram la loo xam ne ñaata effort la borom daaru def ngir loolu maanaam ngir taxawaay boobu maanaam santaane gi ko santaane ba noppit njëkk caa jëf mooy Cheikh Abdoul nga xam ne naalul dara wala mu am yitte dara lu mooy taxawal rek jàngi jaamu ji yàlla te loolu li tax loolu mën a taxaw la ko laltaay mooy liggéey bi fekkes na ko fi ci nungoo liggéey ba tax ñu mën a somb loolu man koo taxawee kon lay yitte ji mooy kenn ku ne am doggu gu toll ni ñaan yàlla nii nuy def di waajal màggalu Daarul Muxti bu bu waxtu wi déwénee bu ñuy waajal màggal gi fekk noonu liggéey bii sëñ bi doon santaane moom li ñuy wax ne féete na ba ni xalaataatat jëmaat ci leneen lu muy mën a doon te ndigal bu wàccee la ca gën di njariñ mooy fajug aajo lay àndal am sëñ Tuubaa daana wax ne ku ma loo dama lay booleeg fajug aajo boo ko jëfee na ma ko bëggee loola du dellu si boo ko jëfewul noonu loola dellu si ci moom moom du la wax dara waaye day xam ne yow lam la boolee loola dellu na ci moom te te lu tiyaaba lim mel mooy yéene ji nit ki am benn dërëmam ki def junni ku def million ki def milliard yéene ji la suñu borom di fay ndax nit ki mën na joxe benn te amoon yéene fukk fekk fukk yooyu bu ko mënoon dana ko def kon mbokk muy màggal si daarul moxti ak fu waaye mën a nekk na bàyyiwaale loolu xel sëriñ bi moom la ñu wooteel juma ca daarul moxti nga ne ah man de lii laa am joxe ko ba noppi jaayante ña nag loolu yitte la joo xam ne kenn ku nekk war na koo bàyyi xel te def ca ab taxawaay bu réeré ndax yoon wi yoonu jëf la sëñ Tuubaa nag daana wax ne ca laa bokk ca laa bokk te sa dara néew ca ba bisu payu ba kon nit lu mu bokk da cay nungoo jëf yëfam waxtu wu nekk te di ko ci taxawee melokaan wu nekk ndax Cheikh Abdoul Bachir mii ko woote tey jii wax ne dañuy taxawal liggéey bi jëmee ko ci Cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Moxti woote ñëpp nga xam ne amul xàjj amul seen ngir bëgg yi yëpp mat ñëpp mën koo bokk ci man koo jariñoo tey jii ko xool téere bii génn bind dunduk Cheikh Ibrahima Fati nga xam ne lis ci adduna lépp mënees surtout mënees naa bañ a umpuleeti lenn Cheikh Ibrahima Fati borom lu Muxti ci ay jëfam ay melokaanam ay jikkoom kon la ngay jëkk a xam ñu ne la téere bii kat ki ko bind mooy xalifa Cheikh Ibrahima boroom Fati borom Daarul Muxti ay at yu yàgg mu bind ko lu yàgg a yàgg ba jamono tey ñëw mu toogee jataayu Ceerno Ibrahima téere bii génn boroom xam-xam yi mën koo xam ku ne mën cee sukkandikoo nga xam ne kenn du jóge fi benn béréb ñëw di sàkku ngëneel bëgg a xam ci boroom Daarul Muxti mbir te te xamuloo ko loola bu ca wëlbatikoo koo wanaat la na la dañuy wootee nag néegub yàlla boo xam ne dañ koy defar defar nañ ko ñu di ko yeese la ko taxawuwaat loola lam lay woon mooy kii kat ndeke aw yiw rek lay sàkku waaye aw yiw rek lay sàkkul mbi def waxtu wu nekk loolu nag njariñ la lu yaatu loo xam ne kenn ku nekk bu kenn xeeb dara lu tax bu kenn xeeb dara mooy euh, Sëriñ Tuubaa dafa ma sox ci njëreem ne yoon wi gën a gaaw ci eggaleb jaam ci yàlla mooy al infaqu fi sabilillah jataay bi mu ko waxee daa am ku ku jóg di dat ngu ndànk ba génn am ñaari naari góor dem yewi ko ñëw andil ko sëñ bi sëñ bi nag ba ma koy wax de bëgg ku ma jox alal taxul dama leen a na dama leen doon yare diw mi nga xam ne lu am joxe ko loola loola lay tegtale waaye ku ne xam na ne Cheikh Abdoul Bachir liggéey bii muy liggéey bu ca taxawoon moom képp ak njaboot gi na ko bëggee woon dana ko ne amee waaye moom it day bëgg bu ëllëgee boo cëroo fa nga nekk nga ne man de ndekki kat am naa bonus boo xam ne la ma ko may mooy dama defaloon borom daarul moxti dara ca jumaam ja surtout fii jamono bi toll nag nga xam ne dañoo génn ci crise bu doy waar ñaari at yoo xam ne tawat yeeg pexe yeeg lu bari am nga dégg jëf yi néegub yàlla bu ñuy woote ci ka ko woote nga xam ne moom defe naa murit bu nekk tey ku taxawalal ku tabaxal borom daarul muxti euh, juma joxeel nga sëñ Fallu àllarba joxeel nga mu Cheikh Moustapha àllarba joxeel nga ko Cheikh Mahamadou Lamine Bara ndax wax naa la léegi na la Cheikh Amadou Lamine Bara nee na bu dul loon ak Serigne Touba mii duñ làmbooy teggil duñ man alxuraan kon tey kenn ku nekk euh, la nga cay jëf ko def mën naa tudd àllarbay fa nga fa nga nekk ngir jëfal ko borom daarul moxti kon nag liggéey baa ngi noonu na ñëpp bàyyi xel te xam ne daal borom daaru la ko Serigne Touba ne woon saa yoo gisee mbind mi xamal ne gërëm naa la defe naa nag loolu la ñëpp di waaye ngërëm li lu adduna yàgg yàgg. ak ŋàññi du ci topp mukk loolu it xanaa doyoon na waaye sëñ bi na ko du ma ca yem maay demal sama bu fa yàlla sàkkul la fa loola sa kem yëpp di ñeey adduna ak alaxira dalal la sa xel te teeyal sa xel te bul sikk sàkk ne lii ca yàlla la bàyyi koo jaar ci rasulullaay ñëw ci man ma wax la ko yow ci Ibrahima xanaa kon loolu doyoon na sëkk ab yóbbal ci adduna Sëriñ Tuubaa wax ko boroom daaru te bind ko yaxal ko nga xam ne mbind la mu leer nañ ñi nekk fi boo ko xoolee tekki sa bët boo xoolee gis ko ngërëm loolee ak tàbbi ca melokaan wu nekk ab taalibi nag bu dee ci ñi nga xam ne maa ñoom ñoo bokk taalibi gi la ma leen ci soññee mooy yéemuy kese rek doyul est ce que sëñ Basiiru demul moroom jàmbaar la bind na téere borom daaru woote na liggéey jumaa ji waaye est ce que yi kese ga ca yem amul solo ba ca toppit mooy ab murit bu fekkee ne saa yu sëñ bi santaane mu ne jaral na ma dee sëñ bi woote wut dee joxe la laaj la woote waxtu jëf jihaat defe santaaneetu ko ci tur deret léegi day mel ni kon te ba ñuy jël deret alal lañ ko dendalee yàlla bi muy jënd bakkani julli ñi seen alal ak seen bakkan bu fekkee tuur deret amut ko joxe bakkan amatul joxe alala joxe la ala ala la des surtout alal joo xam ne fañ la koy dugalal ci yëfi yàlla la delluwaat kon kenn ku nekk war na caa bàyyi xel di sant Cheikh bu baax ci taxawaay bi di sant njaboot gi ndax ku xool màggal gi leen ji programme bi ak ni mu doxee da nga xam ne tegee na ci ak nosu nam ko defee dafa yokk li muy mel mooy Sëñ Tuubaa waxtoo mu nekk day gën a jëm kanam di gën a dëgër di di di gën a baax kon ñu baax ñii ñuy toog di waxtaane it bu kenn waxtaane wul woon borom Daaru Muxti du tey Cheikh Ibrahima Fati di Cheikh Ibrahima Fati ndax fa teen bala demal boppam duy ay wagaanam ba mu fees kon am na la muy wut kon waxtaane borom daaru lan lay jariñ mooy dana la jural nga sopp ko te ku sopp nitu yàlla lu muy jariñ lan lay jariñ nit dana la jariñ nga roy ko ku roy nit ku baax lan la lay jural kon loolu lépp day nekk ci biir tiyaaba ji defe naa lis financé ci plateau yi financé ko ci jataay jël ko ci temps woo ko ci ay kilifa dolli wul sebre borom daaru ci mu doon borom daaru bés ko député te borom daaru di borom daaru waaye dana am koo xam dana ne kon ndeke fii la borom daaru nekkoon kii la borom daaru doonoon sopp ko ndax inna mahabbata awliyaa al-axyaar kanzun aziim min kunuuzillah isla yuhibbuhum ila man arada la an yafuz yàlla kum na mën nga texe du tàbbal sa xol nga bëgg nitu yàlla te borom daaru buñ ko fi ne buñ ko waxtaanee rek na la ba muy tawte ba muy dem ca bataaxal ya bañ koy xiixaan fu ne mu dafa jëm sax yow mi bëgg sëñ Tuubaa tamit dëgg sa xol dana ñeewant ci bëgg borom daaru cofeel ga nga am rek da daal di jëriñ kon nag jëfal ko it lan lay jëriñ loolu mooy njari solos daje yi ñuy daje di ko waxtaane ak it jamono toll foo xam ne ku nëbbu lu baax li nga am leneen lu warul génn mooy génn te ba addunay tukki laa yastawil xabiisu a tayyib walaw axjabaka kasratul xabiis li dul naka su noonu bu doonoon ay santaare ba foo tourné dajeeg moom it du tax mu yem ak te dañuy dem ba mujj ñu jàpp ne roy téef amatul amuñu waay delluwaay déedéet fekk na am nañ ko kon buñ complexe ci indi génn liñ am liñ am mooy jamaa moo gën a riche moo gën a mat ndax borom daaru tey lim dund juróom ñetti fukki at yu manqué weer yu néew ñaari yoon la ma sa tiim ci àdduna ba nga amee ndox fay nga ko mës ta wax sëñ Tuubaa déet sëñ Tuubaa mësu koo laaj te joxu ko mës ta jooyoog ndigalul sëñ Tuubaa te mës ta nekk ci ndigalul sëñ bi ba faat waxtu boromam baa mu faat ndigalul yàlla la ko digaloon te lu nit di sakku ci digganteem ak boromam am na ko la muy wut ci digganteem ak Sëriñ Tuubaa am na ko nga xam ne waxtu wu ne mooy jiital boppam ci jàkka ji waxtu wu ne ba nga julli jee ci jàkk ja li sëñ Xalil Mbàkke di wax naan ci jàkka lay julli jee ci njàpp lay julli jee sëñ Xalil suñu sob bi mu koy way mu ne daaw daawul jullee benn waxtu farataam ci ci kër ci jàkk ja lay dem di ko di ko fa jaamu jee yàlla nga mën a xool kooku effort bu mu toll nga mën a gis liggéey ni mel 40 kilomètres carrés ci jamono boo xam ne mooy amul adduna jafe nga gor ko di fa liggéey liggéey bu mat lépp di lew di dagan di delluwaat ci Serigne Touba nekk melokaan bu mat woo xam ne ku nekk euh, gis na ko loola it buñ ko waxtaanee dañuy xam ne coowul kese du diine weree werantee kese du diine débat kese du diine te borom daru ku néewoon ay wax la waaye ku mas a gis jëmmam waaru ku mas a gis ay jëfam waaru booy wax jàmbaar ba agsi ci moom xam melokaan woowu ni ni mate ci diggantee mag Serigne Touba la Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu waxoon keroog bi sëñ bi ñibbee aljana mu Cheikhul Khadim Cheikh Issa Diène borom daru moo kallafe fi ne borom daru moo kallafe tax mook sëñ bi ñoo bokk sëñ Mor Anta Sali te moo fi mag daana ba ci toppit ñun ñëpp fekk ko ci Serigne Touba borom daaru yit Serigne bi yónnee na ba tàyyi ndaw fi moom te mës sa kenn ci Ceerno maanaam mës sa jël borom daaru yónni ko ci yónni ko ci kenn mu dem dama doxal ko bi yónni te sëñ bi yónnee nay ndaw ba tàyyi wal ma Ceerno waxal ma Ceerno na waaye mës ta wax Ceerno waxal ma diw nanga mu ne kon borom daaru moo kàllaf kera bi ko dencee fii Cheikh Issa Diop si sëñ si naar jenn wan na ko wax ma bataaxale wax ma nettali ma mbir nee na Cheikh Issa ba mu loo ca daara ji dana Ibrahima Fati moo yéeme daana daf bokk ci wàllu yàlla yi nëbb boppam daana dëkk buñ ko denc dëkk ba day moo suuf sa day ram moo dax kun fa denc mu ramm ko daana dëkk ba day màgg day barkeel loolu wane na ci côté adduna rek boo xoolee ni yàlla tànnale borom daaru ci ni mu mel nga xam ne li ko sëñ bi dinaa la fàggulu la ñëpp di ñëwee loolu ku yàlla defar sa xol boo xuusee ci pencum daarul maxti mi da nga xam ne ma yaxtu fii jami am salik loolu am na te te loolu jëfa ko ko may ci ci ci ci ci ci kanam Serigne Touba meloo ko ko may ci kanam Serigne Touba waaye nag la Serigne Touba waxoon sëñ mu daaw balla na ko sa bàyyi ceerno nit ñi dañuy wut àdduna ceerno yi wut yàlla ba am na ko léppam suñu borom la kon luñ ko wooteel ci yàlla rek noonu la war a mel kon nag euh, ku ku dib teeli bi moom jëf ak taxawaay war na la ndax doo xam luy xewaat ëllëg xam nga yaa ngi 2022 ñaari at jàll na yoo xam ne dara taxawul wootewul dara dara amul xamoo yi sa kanam ni muy mel ndax nit mën naa bañ a xam fitiiram waaye nag ginnaaw lii teew na moom na ci kenn ku nekk jëf te màggal si nañ war a màggal ci melokaan yaag doxin wa ak yitte ja ak xam fi nga jëm kim doon xam ne borom daaru moom fowut fofaluwut borom daaru moom léppam diine la borom daaru léppam jaamu yàlla te mandu ndax borom daaru nu nit ma sa mel moom day fexe ba mel ni ko sëñ bi diggal rek te yow na nga mel moom du ca dugg du ca wax waaye saa yooyu jataayoo moom ba gongi ko xam ne kii nii mu mel mooy ni sëñ bi bëgg ko ni mel kon nag yàlla na yàlla yeggale sëriñ bi dem bañ taxaw di ubbi jumaa ji di ko di ko di ko di ko taxaw mu naalaati naal yeggale naalaati naal yeggale ko moom Cheikh Abdoul Bachir Mbacké ci woyof gi ak baax gi ak yaatu gi ak rafet jikko gi boo xoolee tey jataayam bi lu dul Serigne Bachir mooy xalifa Cheikh Ibrahima Fati bu doon garaat la bu ñuy takk amu ca leneen lu mu ca jël na lépp delloo seen i borom jël lépp delloo seen i borom nga xam ne la muy wane rek mooy li mu fekkoon ci yaatal ay kilifaam def ko defaat na lool waaye ñi ko joxit jox na ko ñu jox nañ jox na ko ñu ko bëgg ñu ko naw ñu ko xam ñu ko yelloo ñu ko yayoo muy Cheikh Abdou samat mi nga xam ne defe naa kuñ tànn jël mbirum diine dénk la dénk la jumaa ja ci Daarul Muxti fu mu doon li ma dégg sëñ Basiru Abdul Xulus di wax ne imaam moom sëñ Basiru euh, Abdul Xaadir doon wax ne imaam moom daa yombut rawatina doon ko ci yoonu murit waaye yombut rawatina doon ko ci doonu yoonu murit waaye rawatina doon ko ca Daarul Muxti yi kon na ku ko fa doon ba noppi euh, ñu doyloo waat la wóolu waat la ci lépp kon yàlla na yàlla yàggal leen te wéral leen ba lépp yegg di sant sëriñ Basiru Abdul Xulus baax di leen sant sëñ Abdul Xulus noo ngi gërëm yow it di sant euh, sëñ Abo yow it yaatal na lool sëñ Abo it ñu ngi koy sant bu baax ndax responsabilité yi ñu ko dénk yëpp xeebul xelum kenn fi ne doon ko ne man naa bu sam xel gàttoon ba nga di ko wax dara it la muy gis mooy lañ ci jublu mooy liñ ko dénk jag dana la déglu ci ci ci ci teey ak dal waxtu wu ne ñu ngi ciy déggante si Abdou Khoulous mi barki dem bu jataay bu yàgg a yàgg euh, woonanu ko lépp rek kenn ku ne mu woola ñu woola na la kaay ñoo ko bokk kon nag ku des ca ginnaaw wala ku seetaan yow waaye ñoom ubbi nañ bunt yëpp wax na ne ñëpp ñëw ñu ànd tàbb ca ba liggéey bi son sëñ Modou kon jërë ngeen jëf euh, jërëjëf Cheikh Mahmoudane bi ñuy nuyoo léegi dafa fekk nga génn noo ngi sant sëñ Adama mais nu àndal ak bokki sëñ Daaroog ñëpp kon nu bala wax li dëng ci waxtaan wit it na ngeen nu ko jéggal waaye yéene ji moom buñ sañoon mu gën a yaatu wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam santaat bu baax di ñaan suñu borom gën laa dëgëral ba li nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak Cheikh Ibrahima Faty nga àggale ko tomb bi ñëw nga ci ñëw gu am solo ci importance bi nga xamante ni joxe sa alal ci yoonu yàlla am na ko soññi mbokki taalibe yi itam ci liggéey bi xam naa importance boobu mu am ak njariñ li loolu moo tax yoonu murit ñuy seetlu su événement yu mel nii di waaje ñëw ñuy jël tem yu mel nii di ko def muy thème général bi boo xoolee màggalu Touba comité d'organisation bi màggal gi passé dañoo jël bi jëmee ko ci génne asaka azakat nga xam yëpp daanaka ci loolu la màggal ga ko jiitu itam boo xoolee thème général bi dafa nekkoon ci euh, màggal ga ko jiitu itam waaw màggal ga ko jiitu itam thème général bi dafa nekkoon ci taxawal gi nga xam ne sëriñ bi taxawaloon na ko daara ju mag jooju muy université bi lépp di wane rek ñaax mbokki taalibe yi ñu joxe seen alal ci ñoo ci yoonu yàlla ngir pay gu réy googu ci yàlla digle ñu mën koo am loolu ma waral tey jii itam bi màggal gi di waaj a jublu ñu jàngat ko xam ni importance bi nga xamante ni moo am ci euh, joxe sa alal ci yoonu yàlla waaye rawatina ci néegu bi yàlla bi suñu borom taxawal ba tax kuy koo xam ne moom mi ngi mi ngi suivre communication bi da ci ràññee ak soññee ci màggal gi waaye itam ak soññee ci liggéey bu rëy bi nga xamante ne sëriñ bi taxawal na ko ci Daaru Muxti muy jumaa ji te teg ko ci loxol sëriñ Abdou Samad kon ñu ngi santaat bu baax sëriñ bi ci jataay bi ñu yaatal ànd ko ak ñun waaye tam sëriñ Gana ñu lay sant bu baax yow tamit ci taxawaay yi ak cofeel gi nga am ci borom Daaru Muxti ak yëpp di la ñaanal suñu borom gën laa dëgëral ba say yéene yëpp nga àggale ko lii rek xëy na bokkoon ci jataay yi nga xamante ni ñi ngi ko doon amal fii ci Daaru Muxti ginnaaw bu ñu ko amalee ci ay bërëb yu fasantikoo ci waajtaayu màggal gi ci njiital sëriñ Bassirou Abdoul Khoudous mi nga xamante ni moo jiite wàllu liggéey bi ànd ko ak comité d'organisation bi mu taxawal te nekk ca bopp ba mbokk yi fi teew tam ku ci nekk am côté boo xamante ni moo ci nekk jëwriñ ja ku mel ni sëñ Mahamoudan mii jiite ci pàcc bi jëm ci côté organisation bi moom it taxaw ci yu rafet sëriñ Abdoul Khoudous mii itam ànd ak ab mbooloo ñu jiite côté culturel bi mooy tànn lu jëm ci waxtaankat yi ak discours bi ñu jàllale ci bi ak yu demee noonu sëriñ Modou itam euh, di ci taxaw taxawaayu rafet ci istiqbaalu duyuuf yi nga xam dañ ko am mooy accueil bi ci kër sëñ ba ak la aju ca ci anam googu lu ci nekk itam xëy na dañuy wax ni diw daf caa nekk ca bopp ba waaye boo ko xoolee mbooloo la ci àndal moo xamante ni mu fasantikoo la ci ay kër ci njabootu borom daarul moxti ñu àndandoo ko kon sëñ bi xam naa dañ lay jébbal kàddu gi rek nga soññee ci mbokki taalibe yi nga xamante ñooy ñëw ci màggal gi eh, li nga leen dénk pour bu ñëw ci raay bi bu ñu ñëw Daaru Muxti ñu ñëwee noonu su ko daal di ñaanal mbooloo mi ñu ngi santaat bu baax dina ñaanal suñu borom gën laa dëgëral ba nga àggale yëpp ci barkeb sëñ bi wasalaam. jërëjëf yëpp rek eh, màggal gi te seet niñ fiy dikke xam ne ci jàmm yàlla lañ jëm si dëkk boo xam ne dëkku barke la dëkk boo xam ne dëkku diine la des des des fa des daa man am anam bu ñu fa a nekkee am anam bu ñu a ñëwee ku ñu nga bàyyi nga bàyyi xel ci loolu xam ne li ñuy def muy màggal gi du pour pour pour pour jàmm yàlla pour tiyaaba la te la ci ëpp solo ci joxe tiyaaba fi leen koy def ba ñëwee ànd ci ak ñoom jàng alxuraan jàng xasida yokku bokk def ay berne moom nit defalul yàlla lu lool moom màgg gi tax bi kon ñi fi ñëw dañ bàyyi xel ci dëkk bu sedd la ñëw dëkk bu sell nit nag dana nekk ci barab bu lu baax yomb lool bari fa lool waaye man na fa nekk bu jóg du fa jëla dara nit dana nit dana ànd ku baax lool ku bari la ku bari ku bari la baax te mën ko joxe mu nekk moom ba jóg fi ba denc ko ba rob ko du fa jëla dara yàlla li muy baax baax ak li mu li mu koy bëgg bëgg bëgg ak li bare li mu ci tabe tabe du jox baax ku jox baax ku bëggut waaw pour nga am lu baax da koy bëgg pour lu comme pour nga am lu baax da nga koy wut fii nag barab wutukaay la ku wut lu baax da ko am ñu ngi koy soññ bokk yëpp ñaan yàlla ñu àgg leen ci jàmm génn ci jàmm waaw nga sant nga sant gaa yi itam nga sant leen baax a baax a baax ñoom sant leen baax ndax seen jamono ji jamono ji média la <laughs> day lu am solo waaye damay wax toujours man ñi moom saabu saabu moo ngi gisee rek simple simple daal sama sama xel dem waaw. Ah, réew mi la fi nekkoon a xam na ko benn rajo fi nekkoon ñeenti téye leen waaw lu neex jàll loolu neex téye waaye keroog ba suñ bi waxee ne ginnaaw bokkul bëriwuñ ci nañ ko def rajo yemale ci rajo ba ci Mali ba ci Guinée keroog la ko suñ suñ ci waa rajo yi waaw <laughs> rajo yi suñ daal ko fi indi ñu ngi ko ci sant bu baax ñu ñaan yàlla yokk leeram te sàmm ñu ngi sant mboolem mépp yàlla ñu ci dugg ak jàmm génn ci salaamaaleykum wa rahmatullah ahmadu soxna busa mu mamar ma xaram moo sampiraayam mbàkke moom fa ahmadu soxna busa mu mamaram ma xaram moo sampiraayam maami mbàkke fa këram aram bindoon na bis ab din ko ay ngërëm yu ànd tagg nee bu dégg ak noddu day dawaari ba sër yi xottiku di xubbil waari